soo koy joxe soo dikkee fii rek yàlla indil la lu ëpp li nga joxe woon. waaw mais dama gis ñoom ñu di la téye ngay fitandi ko xanaa dañu dañu yaakaar ne imaam. ay loolu ci bu may jàng sax mbéy mi sedd la ji dama daa fayee ko sama bi topp mbedd mi sedd la ko miskini hmm? Hmm? naa da lebal yàlla rek te yàlla moom dana la fay léegi. Hmm? waaw imaam ñoom saa suuf yaa ngi sax dañoo xam ne aati maa fil jayb yaati kamaa fil xayb joxe li nekk ci sa poos li nekk ci xay bu dikk wàcc. waaw imaam léegoo léeg euh, xam na xam nañu imaam ñu dëkk ci réew mi ci wàllu njàngam ci wàllu anglais wàllu français yu bëree bëri ndax léegoo léeg du ñu toog benn bés rek ñëw proposé ne la imaam dañ la bëgg a fal lii ak lii. ak xalaat ci titre yi ñu ma fal ci àddina bi wax man fàkke wam ko sax ci Nations Unies même Afrique du Sud bu yàggut bi ñuy fal ne dañoo bëgg benn musulman bu ñu fal. def ko mu nekk euh, porte parole jullit ñi ci Afrique ak ko xam ne làbbe lay nag mu nekk ko porte parole làbbe yi porte parole jullit ñi ci Afrique man lañ ko fan te man fekkee ma fañ doon falee sax ci Abuja itam biñ dajalee organisation islamique yi ci Afrique invité 45 pays ñu def ko conférence ñetti fan te ñeenteeli fan ba ba ñuy tànn président ñu ne président yi kenn warantewu kook imam poste yi ci des yëpp dañ koo voté nga ne dama bëgg nit ñi voté ba ña jox nga jox la ko waaye présidentiel ñëpp anonymous unanimous ñëpp ànd ne kenn xëccoo ko imam si hmm? te yooyu sàkku sàkkuwuñ ko hmm? waaye alhamdulilah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pal soo ko yàlla daf lay bàyyee diis bi waaye suñ la ko tegee te fekk sàkkoo ko yàlla daf lay waaye falal diis si waaw loolu ci bitim réew la ñi xam sa capacité ci wàllu xam-xam waaye réew mi léegoo léeg ndax doo toog toog léegi benn homme politique wala pour proposer la lu demee ni fàllaag yu demee noonu. ah déedéet déedéet. maanaam duñ duñ lay proposer def la ambassadeur rek yu demee noonu. ay man président Wade ba ma fi woowee sax ne naa ko tànnal commissaire yi ku nekk commissaire au pèlerinage dama na ko jox ko Cheikh Tidiane Simi te joxuma ko ndax li muy sama mbokk rek. xam naa ne moo ko Seydina mii nga xam na rakkam la ay at ni ñuy liggéey ci yóbbu nit ñi màkk indi leen te mosuma su ñu yóbbu nit ñi màkk indi leen ñu ñu tawat dara ci loolu laa baase ba ne suñu leen ko joxee ñoom itam danañ ci def seen talaay kàttan ba dañ ko def nam gën a rafetee te bañ ko jëlee ci moom ba léegi defaguñ fi aj gu mel noonu hmm? ndax nit suñ ko joxee liggéeyam daf ciy def ba def ci wàlli boppam aj googu Cheikh Diagne def na ci ba def ci 16 millions yoo xam ne ci xaalisam la ko joxee te ba léegi delloo guj ko ko waa imaam euh, euh, suma yaay suma wax ne wàññi dépasse bi ngi dalee ci emele ko ci liñ la jox loolu la suma di wax waaw maanaam jigéen suñ ko joxee dépasse su ca yokkut benn dërëm rek wàññi na ko ba pare waaw waa imaam euh, dañu mos a dégg ne mu Niass daf la mos a oo pour proposer la loo xam ne lu demee. ma la nettali nga ko. Moustapha Niass bi mu nekkee ministre affaires étrangères dafa waxoon sama baay ne ko su fi Assane ñëwatee ne ko dama ko soxla dama ñëwee sama baay wax ma ko ma ànd ak Serigne Aati ñu dem buy jiko dañ demee ba toog moom mu ne ma defeewu ma la dara ak sa tukki yu bari yëpp musuñoo jot ci yow rapport bu ñaaw dama bëgg nga tànn ci réewi arab yi réew mu la neex ma nommé la fa bala may tontu sëñ aada jël wax ji ne ko réewi arab yi lan asan kay Angleterre wala Washington mu ne loolu diguma ko ko ren waaye déwén mën naa nekk te booba ci novembre lañ nekk ma ne ko walla ngeen defal ma li gën ci man mu ne ma loolu mooy lan ma ne ko mooy ngeen dimbali ma ci li ma nekk mu ne buggoo liggéey ak ñun ma ne ko bëgg naa liggéey ak yéen waaye ci li ma nekk man ba léegi suñ suñu proposé woon dara loolu mooy tontu li. maanaam ci li nga nekk nuñ ko mën a déggee. maanaam liggéey lislaam liggéey lislaam ci biir réew mi ci bibil ci réew mi liggéey bi bi nga xam ne su ma nekkee fi moom la ma somaam bàttale ci jàkkaam ji itam ci jubaam ji lu ma ci man ma def ko hmm? yoon wa nga xam ne moom ci moom lañ ko gisoon ci moom itam di tukki ci àddina bi hmm? di di ooteel diine lislaam ci yoonu jàmm ci yoonu xam-xam hmm? tam ñu ñu toppandoor ko ci loolu koo mën a dimbale dimbale ko koo mënta dimbale nga maanu ci moom wax imaam xam naa am na benn laaj boo xam ne danañ la ko laaj muy imaam gis nañ ni yaa ngi tabax ay eh, école yaa ngi tabax ay hôpital waaye imaam eh, ndax nguur gi danañ lay financé ak tamit imaam kan moo koy financé wax dëgg yàlla nguur gi financé waaw euh, loolu moom nguur gi financé ndax mos nañu la dimbale. dimbale wuñ ma itam waaw. kon imaam ay financement suñ ma doon dimbale suñu jox ilimaan yi suukari koor sax boole ba ci suñu ma doon dimbale suñuy dimbale daara yi sax boole ci safa daara ci te boole wuñ ko ci nguur gi dimbalewuñ wuñ ma. kon imaam ndimbal fu fu muy jógee ko. yàlla yàlla. maanaam yàlla ak taalibe yi nga xam ne. yàlla yàlla ba mooy dimbale. yàlla moom ñuy dimbale. ñu bëgg lu baax itam suñu xarit ci àddina bi. ñu ñuy jàppale ñu ñuy dimbale. waaw imaam xam naa ñu posé la question boo xam ne xanaa doon xaw a doy waar sax mu imaam lan moo ko gën a métti daal nit ku nekk dana am yoo xam ne loo xam ne euh, dana ko gëna a dana doon na loo xam ne daal ku ko laal laal si dutu jëm daal. mooy lislaam bi rek ñu lislaam rek la ñu am hmm? lislaam rek la ñu ak jullit ñi lépp loo xam ne dafay jëmale lislaam bi ca kanam loolu neex nañu. lépp loo xam ne dafay néewal doole jullit ñi wala daf leen di nasaxloo loolu naqari na waaw imaam kenn ku ne dana am buñ koy buñ ko saytee danañ ko laaj loolu muy fàttaliku ne ci dundam bés boo xam ne am na loo xam ne naqari na ko du ko fàtte mukk daal eh, ndax ah, yow loolu danga ko laajte yow nga toog bàyyi ku eb li bàyyi ños génne àddina ci sa kanam hmm? Hmm? kenn nekk ku fa jàpp jàppal fi jàppal fa la sax yow rek yaa fa nekk hmm? donc naqar bu nu ko passé kii mooy bopp famille bi loolu rek doy na kii mooy bopp lislaam bi loolu rek doy na wilaaye mbaax lu nekk rek some la ci benn journaliste daf maa laaj ne ma ndax gëm nga ne bàyyi ñes nit ku baax la woon ma damay wax ne su fekkee ay nit ñu baax am nañ moom ma ca seen ko waaw ko rek dama koo dund ak moom gis ko ci moom xam ko ci moom hmm. bàyyi pour ñu du sëriñ yaama neex ni déedéet lu ñuy wax ci moom rek dañ ko dund ak moom waaw xam-xam bu rafet sell waa imaam euh, tamit waaw hmm. imaam tamit ñu laaj la maanaam bis boo xam ne imaam am na bànneex boo xam ne tamit du ko fàtte mukk hmm? maanaam am na mbégte boo xam ne mbégte boobu du ko fàtte Euh, ci lislaam bi. Euh, suma nijaay maa ngi ñes mas na maa laaj. dama imaam lu la gën a neex. ma ne ko le fait que mën naa ubbi alquran jàng. loolu moom moo gën a neex ci àddina waaw. te ba léegi itam mën a ubbi kaamil bi jàng walla nga toog sax tari. mbégte warta paase loolu. Euh, imaam ndax da ngay bay. ah man maa amee sama tool. tool yaa ngi fii ci kawoon tool yaa nga fële ca Kosi tool yaa nga fële ca Pësi looy wax ni. imaam eh, yan ñaata dëkk nga sos. déedéet <laughs> ay dëkk rek sosuñ ko Kosi Atlantique gi moom lañ sos ci dëkk dañ fay dem ndox dekku fa courant nekku fa fexe nañ ba am na ndox te dañ daal di kilomètre juróom-ñaari kilomètre bala ñoo am ndox. dalee ko ca jamono bàyyi jee nag ba mu fay nekk ca Kosi gu mag dañ daal dem ay juróom-ñaari kilomètre teen yi dafa sori dem nañ ba France jënd ay tiwo yoo xam ne àggale na ndox mi ci kursi baay bi waaw def nañ fa courant bi itam courant amu fa woon hmm? ba tey tabax nañ fi juma saalif ba dimbale woon nañ ñu am fa case de tout petit centre case de tout petit dispensaire daara alxuraan hmm. waaw imam euh, ñu laaj la sa relation ak yeneen këru diine yi nekk ci réew mi euh, nu mu demee. jàmm rek jàmm ju mat sëkk ndax loolu lañ fekkoon bàyyi sëkk ak ñoom muy Touba muy Tiwaawoon waa Laayeen waa Kunta Kunta yi ñëpp jàmm rek lañ sëkk ak ñoom kenn mu ndoxaa barki dem ba dem naa jaale ji leen ma daane mu ne ma ñu bari ñëw nañ ko si jógee kawlax waaye li jaale bi bari bari bañ la jiitu rek jaale bi matutoon waaye bi nga ñëwee fi ma jaale bi mat na waaw fi nga jàpp nañ ne kawlax yëpp jaale nañu gannaaw ak sink waaw waaw Thierno Mountaga yéen ñaar da ngeen amul relation ndax mën nga ñu waxal relation bi fu mu tàmbalee te xam nga ñoom ci génération yi mag ñi lañ bokk ñun xale lañ pour ñoom dama laa wax ne dama am benn volume bu ma mës a jëlee Paris ci bibliothèque nationale maanaam 5000 volumes yañ jëlee ci kàggu Cheikh Omar bi français gagné armée tidiane yi ci Mali dañ faa jële ci kàggu Cheikh Omar 5000 volumes téere ba nga xam ne ci lañ listé téere yooyu yëpp nag benn naar moo ma seet si fii may may waxtaan ba wax ba duggoog moom ci waxtaan woo wan ko téere bi mu dem nettali ko jar daba imaam de ma nga amee téere boo xam ne booleem téere bu nekkoon ci kàggu Cheikh Omar bañ koy jël gis nañ ko ci otom ba ñëw fii ma jox ko ko ma jox ko téere loolu moo nekkoon relation euh, tabaarakalla Ibrahima itam mu ñëw fii ci jumaa ji waxtaan fi waxtaan rafet ci baay ma ne ne fii ba bilaadu Sudaan ba Makka foofu jaar tudd turam rek dañ la tëral daanaa dem këram itam su ma nee ba ñaare dem ziyaara ko nuyu ko comme kilifa la ci kilifa tijaan waaye waxtu boo demee itam da koy fekk ci jéewi xam-xam ci ay téere di ay masala ci loolu lañ ko daa fekk. waaw imaam xanaa ni donc toujours dañuy tase ci conférence bi ci mujj mooy conférence bi ñu tase woon fii ci Maroc ci Ramadan bi te buuru Maroc invité woon. Aboubacar si jarbaatam xam na dafay ñëw ba fii di ñu seet si même keroog bi may jaale ji sax moom lañ téléphoné mu dem jiitu ji ñu foofu hmm. Naziru Taal Cerno mag la ci moom toujours dafay ñëw fii di ñu nemmee ko bàyyeb def fi daa ñëw waaw waaw am na benn yoon sax mu ñëw fi ne dafa am soxla Cheikh Omar feeñu ko ne ko demal Medina ca imam soo demee nga tudd ko soxla dina ko faj waaw ñëw fi kër Baye Assane dem la jaar ñëw fi wax soxlaam alhamdulilah fekk ko fii te njox ko waaw xam naa ay wasiya lañ lay laaj maanaam tey boo doon dénk ndaw lu toll ci dooleem loo koy dénk ay du may ragal yàlla hmm? li yàlla digle nga nekk ci sa kem kàttan li mu tere nga bàyyi hmm? Hmm? ndax Baye saf ñu daa wax ne yiw lépp mu ngi ci topp ndigal safaan lépp itam mi ngi ci mooy ndigal moom wax nañu wax bu leer képp ku bëgg a nekk ak man ci lii ma nekk na nga sama yoon ci wax ak jëf topp ndigal yi bàyyi tere yi te waxtu wu nekk ngay xeetu àgg ci ngërmande yàlla lu mag ak yërmande yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp kuy askaru ci man ñu gis la li sharia digle sa yoon nekku ci toppoo yàlla toppoo yonent bi yaa ngi waxtu wu nekk yaa ngi def lu xaraam mu ne kooku maa ngi maa ngi seedaloo yàlla te di leen seedaloo ne awma benn affaire ak moom imaam jigéen joo xam ne duggagul ci néegu sëy loo koy dénk ay nafegu rek te jéem a baax waaw su jéemee baax bés boo amee jëkkër doom ju nekk mën a nekk soldat de l'islam mën na caa judd waaw doom yu ñëpp dégg ndax imaam Abu Hanifa te suñ la nettalee xis sa yaayam da nga gëm li ma la wax baayam tool bi te boroom tool bi mayut ko mu dellu ba ca tool ba gardien ba mu fa fekk ne ko mën kat sànq bi ma jaaree ci tool bi damaa foroon pom di ko lekk ma bëgg nga daganalal ma ne ko man moom tegtal place bi tool bi nekk ba mu ba àgg sànq bi ma jaaree ci sa tool bi dama fa for ab pom doon ko lekk mu jigi ma fàttaliku ne daganut ma ma bëgg nga daganaalal ma waaw borom tool bi te dina xam ne kii nit ku baax la daganaa mi ngi xalaat xalaat bi ndax soo dugalee tib bu xaraam ci sa biir mën ngaa toog ñeent fukki guddi duñ la nangul julli duñu la nangul bépp benn jaamu yàlla moom itam mu ne ko ci sartam nga takk sama doom bu jigéen wala ma koo daganal mu ci loolu rek nga koy daganal mu ne ko te nag sama doom jigéen ji ma lay wax dafa lu dafa selmaxa dafa tëx te dafa la faj mu ko waaye loolu rek ci nga koy daganal mu ne ko loolu rek ah mu ne ah, mu takkal ko sëy ba guddi jotee ba muy seeti jabaram ba mu nuyee jabaram moo ko uyu mu xam ne kii luwut te xam na ne mi ngi taxut itam te gis na ko mi ngi xool te gis na ko mi ngi dox moo ubbi bunt bi mu ne ko subhanallah yow sa bàyyi daf maa waxoon ne dangaa luut dangaa tax dangaa la fay dangaa selmax donc sama baay wax na dëgg dama lu du ubbi suma gémmiñ mukk di ci jëw benn nit dama la fañ du jóg mukk di dox caaxaan dama selmaxa duma ma ubbi samay bët mukk di ci xoolal yàlla daf ko xaram dama tax itam du ma may samay nopp mukk muy déglu ay jëw ak ay wax caaxaan jigéen jooja moo jur imaamu abu xanifat xam des wax na malik na xambali na xana fi moomu moo leen ñeenteel te la doon maye lu baax ba léegi mooy maye lu baax ndax million million yu bon c'est zéro waaw du defal dara ci lu baax benn bu baax nag mën na laa yóbbu waaw ña baax ñoo jur ñi bon itam ñoo bon ñi ñoo jur ñi bon. imaam euh, lan ngay dénk maanaam sëriñ si nga xam ne ñoom lañ topp. ah xanaa li ñuy dénk li ñuy waxtu wax taalibe dañ ci nekk ba pare lañ ko wax li ñuy digle ñoom nañ ci jiitu ñu gis leen ci ci lu baax waaw. Euh, alaaji baraam sëriñ bay dama koy dégg toujours muy wax ne soo ne diw mooy sama sëriñ nga dem ziyaare ji ko nekk moom ci dëkk ba ñetti fan gisoo ko ci jumaa ja gisoo ko ci wasifa soo delloo takkaan ne da ngay delsi pour ziyaare si ko ziyaare ko ngir yàlla beneen affaire nekk ci sa xel bi ci loolu nga koy ziyaare waaye ziyaare ko ngir yàlla taajees ñun bañ ko tàddee sëriñ lépp lu sëriñ di def rek dañ ko cee gis lu sëriñ war a def itam dañ ko cee lu sëriñ war a wax itam digal ko ay taalibeem dañ koo dégg ci moom ah yow nag su fekkee ne sëriñ jaw yaa ma neex rek la nag su boobaa yow anta xor hmm? waaw lan ngay dénk ab taalibe tamit ci digganteem ak sëriñam li ko ci war ah taalibe bi na topp sëriñam innal muhibba liman yuhibbu mutiwa bàyyi ñes ba mu ñu waxee ne ci tànk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxaw fa ida saara xayru naasi sirtu waraahu fa in xalla yowman fa ñi suy dox rek maa ngi ca topp ca gannaaw waxtu wu taxawee du ba seq benn jéego yow soo ne bàyyi ñes mooy sama sëriñ jéem koo roy ci jëfam yu baax jéem koo roy ci xam-xam bu rafet boobu jéem koo roy ci bëgg mbëggeel gi xam ne daf ko en loon mbooleem mbindeef waaw ne ne mbindeef mi taxaw ci kanamam sax mënta gis ci xolam ne daf koo bañ bàyyi ñi ko doon xeex ci jamono sax bañu leen ndax sardaw na ma ko doon xeex ca Nigeria ba journaliste yi gis nga niñ mën a kappase ñaar dañu indi première page porte la indi première page sardaw na ne buuri àddina songoo naag léewtoo naag buuri àllaaxira xamuñ ne kuy gàñee xeex bis bi coup d'état amee Nigeria bañ ne Sardono moom ray nañ ko ci këram fekk bàyyi ci jumaa ji bàyyi dafa rot sujjóot bi mu sujjóotee ba jóg ne li tax ma sujjóot dama sant yàlla ndax suma benn ndokk ci ray gi ñu ray Sardono ci suma xol bi waaw maanaam ndokkuwut ci ray dafa bind dafa bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg mbindeef yi waaw ba gis na ne mbindeef mi yàlla gannaaw yàllaa ko bind rek moom ko war a bind dafa war a bëgg dafa war a dimbali waaye warta nekk sax di bëjante woon di ko bañ déedéet waaye imaam nag euh, ñu wax ci actualité euh, ñu ngi waaj a jublu si élection yi euh, homme politique yi kenn ku nekk da nga jóg coow li dana bëri lan ngay dénk ñi nga xam ne ñoo jóg ngir laaj réew mi kenn ku ci nekk en tant que kilifa diine boo xam ne dañ la seet si ngay wax ci di tibbee ci alquran di tibbee ci hadis yonent yàlla Muhammad di tibbee it ci waxu borom xam-xam yi ñu sàkku ci yow kàddu goo xam ne danga ko yëkkati jëmee ko ci ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi ak ñi nga xam ne tamit ñoo leen di sànnil carte imaam. ay ah, laaj réew mi moom ñun lii rek lañ leen di dénk nañ ba ci seen xel ne réew mi seeni i mbokk. du ñu ay jàmbur ci ñoom. te suñ demee bañ dénk leen itam nañ ba ci seen xel alaaxira ne yàlla dina taxawal jàmm bu nekk lépp ci li nga ko dépassé sa alal ci lan nga ko def sa temps bi nga amoon ci lan nga ko def liñ la dénkoon ci nan nga ca def yonent bi sa alayhi wa sallam wax na kullukum raayen wa kullukum masulun an raayati yéen ñépp ay sàmm ngeen te sàmm bu nekk danañ ko laaj caawam moo tax sidna Omar ibnu Xataab bi mu nekkee amirul muminin mu ne daaba ju fokkatalu ca mbedd moom mi ngi Medina mi ngi ragal yàlla isaab ko àllaaxira moo tax bi ñuy tànn xalifa mu ne buñ tànn kenn ci jiitam gi moom kenn rek lim ci def doy na lay ëllëg ci àllaaxira waaw ndax dañuy foog ne lu yomb la waaye duur lu yomb hmm? jiite nit ñi bàyyi def ñu bàyyi ñes def daa wax mu ne ku foog ne euh, màng la ndax nga sa bopp waaw dénk nit ñi si na Omar daf daa jóg guddi di dox ci kër yi di dox ci mbedd yi seet nit ñi luñ nekk dox na ba gis benn kër jigéen jaa ngi wax doom ji ne ko gaawal njar meew mi ba jaay moom la ñuy wax bàyyaatu lëbët mu ne ko deet njar meew mi soog koo jaay loolu buuru julli daf ko aayoon moom xale bi mooy tontu yaayam yaayam ne ko yow defal li ma lay wax buru julli ci lan buru julli daf fay nekk bay bay xam ne njar nañ ñoom wala jaruñ ko mu ne ko fi buru julli nekk itam yàllaa ngi fi teew Sidna Omar wax ki ma àndat ne ko markeel ma kër googu ba tey ñu del seer ci jigéen ju baax lan lan lan la mën a def marke ci ëllëg sax Sidna Omar yónnee ci kër gi ne xale bi doon tontonte yaayam kan la ak ndax mi ngi ci sëy su nekkul ci sëy dama ko bëgg a labatal kenn ci sama doom su ma nekkoon tey ci fu may jëlee jigéen kenn du ma ci njëkk Abdoulaye Ubaydulaay yëpp gàtt Asim nangu mu takkal ko waaye jigéen jooja moom mooy maami Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne bokkut ak xulafaa yu mag ñi jamono waa soo ne ne Omar Ousmane Ali Omar ab Abdul Aziz moo leen di juróomeel fële te bokk sax ñoom jamono sax te ci jigéen jooju la jóge waaw moom itam ci jamono bi mu innee maandu maandu maandu ba mbokkam yi di coow ba dem ci benn bàjjanam wax ko ba bàjjanam oo ko ne ko Omar na nga yombal damay ragalal damay damay ragal sa mbokk yi indi la bés boo xam ne dina dëkk bés bu tis ci yow mu ne ko bés bu duur àllaaxira rek ragaluma mu ko waaw Omar ibn Abdul Aziz ci ci jikko yooyu itam ba tey waaw bu fi mën di ñëw ñu di ko denk yëfi yëfi bindee ak yëfi réew mii ndax xam ne lépp luñ ko denk rek yàlla dina ko laaj ëllëg ci àllaxira waaw mu toll nii euh, ñu ngi jub li nga xam ne mooy élection yi man la man la jox leen ma jox leen ma ndax loolu diine santaane na ko imaam. ah ñun dañuy loolu lañ ko fekk rek. Hmm? waaye yàlla wax na ne qul illaahumma maalikal mulk tuutil mulka man tashaa tuutil mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa biyadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir nguur moom yàlla moo ko moom ku ko jox rek kooku lañ ko jox waaye kañ ko jox itam na ragal yàlla ci jaam yàlla yi ñi nga xam ne it ñooy euh, leader yi nga xam ne. damaa mas a toog fi benn bés. may xuloog suma benn xarit. ma ne ko mu dafa ma tëb may jigéen ñi ma ne ko lu tax nga def ma loolu. moo ne dama ragaloon jox la ko nga may ko ñeneen. ama ah, ne ko yow da foog ne man fii ma toog di li ma fiy fekk yëpp maa ko moom. amul ma ko moom nag. ma ne ko man sama sama morom yi nekk ca daajoo bala ñu am benn fukki junne mën ma toog ci ker gi fi téeméeri junne man ma fee fekk dof naa ba foog ne téeméeri junne yooyu maa ko moom ma ko moom nag ma ne ko su ma jëlee sama soxla li ci des jaami yàlla yi ci topp di wax seen soxla yi ñoo ko moom mu ne mbir mi nii la tëdde ma ne ko noonu la tëdde ñoom itam nañ xam ne xaalis yi ñu leen di jox duwul xaalis yi ñu leen jox pour seen bopp xaalis yi réew mi la xaalis yi ñu dëkkee réew mi kenn ci ñi ñu Sidna Omar faloon boori Caam ñëw na di xajale lii baytimaa la ko moom lii ay kado yu ñu ma joxoon la Sidna Omar ne ko dajaleel xaalis bi nga di ma wax ay baytimaa la kado dama toog sa kër baay ba xam ndax nañ lay indil kado foofu dégg soo lu ñëw yaa ko moom déedéet wërsëg gi mbindee fi moom la yàlla dajale ci sal soo doxalee ci yoon nga dimbale ci jaami yàlla yi. waaw sëñ bi xam naa am na laaj bu may. Hmm, dañu gis ne eh, réew mi eh, ñaar ñoo fi dëkkee muy ñi tànn jàng alxuraan ak ñi tànn jàng français waaye dañu gis ne école français yi bari na. te amul benn école bu taxawal pour xale yi di ci jàng alxuraan ndax eh, nitu daara yi dañoo bokkul ci réew mi wala. ah loolu de man moo laala la bëgg a laaj may itam. loolu de man moom laa la bëgg a laaj ndax ba ma gisee ko ñun suñu dëkk dafa am lu ñuy wax euh, cantine ñay jàng français ñu ngi leen ko jagleel danañ am ndékki danañ am añ fa ñuy jànge ñuy jàng alxuraan ak jàng diine kenn du leen jox dara te waxtu bu nekkee ci conférence yi mendicité mendicité alquran daara yi dañuy yalwaan daara yi dañuy wax ma ne leen bu fi kenn tuddati yalwaani daara yi. loolu de man moom laa la bëgg laaj ma itam ndax ba ma gisee gisante koo fi anaan wax laa ko danaa ko ñun suñu dëkk dafa am lu ñuy wax euh, cantine scolaire ñay jàng français ñu ngi leen ko jagleel danañ am ndékki danañ am añ fa ñuy jànge ñuy jàng alquran ak jàng diine. kenn du leen jox dara te waxtu lu nekkee ci conférence yi mendicité mendicité alquran daara yi day yalwaan daara yi day jox ma leen bu fi kenn tuddati yalwaani daara yi bàyyi lii jàppal ci lii alquran du ne jàng ko wala daara wala lislaam sax dafa digle yalwaan yonent bi sallallahu alayhi mu wax mooy ne demal nga dem ci àll ba taxan enu ko ci sa gannaaw jaay dundee moo gën nga laaj nit ñi jox nañ la daara su nekkee ci daara amul lum dundee mën naa dem yalwaane ci ñi koy mën naa dem yalwaane ci jaami yàlla yi ñoo xam mën nañ koo sarax lu bu reere waaye duute daara moo santaane dem leen yalwaane te bala nga ne wax loolu wàcce léegi gare du Nord ca Paris sooy wàcc rek gis xale yi yalwaan foofu ca ca buntu station bi demal Angleterre da nga xale yi yalwaan demal New York da leen gis ci terrain yi da leen gis ci mbedd mi waaye bu lislaam bi rek moo leen neex ci wax ji waaw te bu lislaam bi itam suñ leen suñ defaloon daara alquran yi lii ñuy defal école français yi kon xale yi jàng alquran du ñeel waan te su jamono doxee bañ emale ñiy jàng diine ak ñiy jàng alquran ak ñii di jàng français ñu xam ne daara du ne dafa taxaw pour yónni ay doomam pour ñu yalwaane foofu anaan ba ma ko waxee def na ma ñun africain buy jàng rek am nga droit ci loolu maa nga ñun de jëfuñu de tëddeewut noonu kuy jàng français daal am nga ci droit kuy jàng ci école yi arabe yi wala ci école yi alxuraan yi amoo ci droit waaw discrimination boobu moo fa nekk waaw te te taxawaalu lañu bañ te am na ñoo xam ne dañu taxawaalu guddi te dinañ jox te xam nga taxawaalu boobu lu nekk mën na ko indi cim réew kon bu dee taxawaalu taxawaalu la rek imaam kon eh, taxawaalu guddi moo gën a garaaw taxawaalu bëccëg ah, taxawaalu sax dafa baaxut ndax doomu nit ku baax dafa benn xarit libaane suñu benn xarit buñ bokk maa moom tudd MD Yusuf ca Nigeria waxtu wuñ ko tuddee rek dafa naan ma ibn aila la jógewut ci mbedd mi waaw kon ñii di taxawaalu ci mbedd mi ak ñi nekk ci biir famille yi ñu yar leen yari famille war leen fi ñu war a jaar jàngaloo leen ñu jàng li ñu war a jàng duñu emoom mukk ak ñi ci mbett waaw imam mu des nag euh, xam naa mooy suñu question buy mujj sax ndax ñu bàyyi la tamit fi mu toll nii ñu bëri ngi toog di la ci biir ak ci biti euh, politique bi euh, li nga xam ne mooy élection yi mu ngi jublu ci bu ñu waxee leader politique yi des na nag ñi nga xam ne ñooy peuple bi nga xam ne ñoo war a sànni carte Euh, te ñaari carte mu am carte bi ci gémmiñ bi ak carte bi ci loxo bi léegi lan ngay dénk euh, ñi nga xam ne it ñoo dëkkee biir réew mi ci wax jàmm ak def jàmm ak diini ni mu bëggee jàmm ak bu bu bu élection yi lu ñaaw bi mu ngi kenn ku nekk di sulli sa mbootu moroom loolu tamit bëgg nañ daal nga wax ci ak askan bi imam waaw moom élection jarul wax ju ñaaw leader politique bi nga xam ne moom nga tànn yow yaa xam yan avantage nga séntu ci moom ëllëg su fekkee da ngaa séntu ci moom ne kii dana taxaw suñu àddina taxawuñu ci suñu diine kooku jar naa xeexal ba mu jot ndax toujours damay wax ñi daa ñuy wax naan sëriñ warta politique ankay sëriñ war naa dugg ci politique ndax lan su duggul ci politique saay saay mooy dem politique ñëw ilif ko ci dëkk bi ko loo xam ne bëggut koo tegoo wala def ko loo xam ne neexu ko te du ci mën dara waaw te gannaaw carte mooy joxe loolu kon sëriñ itam war naa def bëre ba nga xam ne ci ñuy sànnil carte mu nekk koo xam ne yéene na réew mi jàmm yéene na ko ñi ko ñuy dëkkee réew mi jàmm te préparé na itam pour defal leen ko maanaam duur na rek dangay ngay coow rek ba am place suñu la joxee place rek nga noppi déedéet loolu du politique bu baax. Hmm? du affaire fen itam jullit bu gëm du fen mukk démb am na policier yu ñëw fii waa ji mu ne ñu daal dañoo bëgg a wane Sénégal ci beneen image bu gën a rafet image bii nga xam ne moo fi nekk tey ñu bari dañoo foog ne suñ fenu tappale sàcc bu ñu am liñ bëgg moo ne nit ki mën naa ñàkk a fen te du tere mu am liñ bëgg Sidi Abdou Khari ji ci exemple ma tëjee ko dafa dem Bagdad di xale yi ci daaral elmi ni ñuy jàngee ba mu delloo ko mun a yaayam dama bëgg nga may ma yàlla yaayam na pour lan na ko ndax dama bëgg a ci xam-xam bàyyam bi muy dee dinaar la bàyyi yoon foofu yaayam xaaj ko quarante dinaar yi mu jël ko ñawal ko ci loxo mbubbam quarante ci des mu jox ko Ali mbokkam mu góor mi def ci kër gi bi Abdou Xaay taxawal ko ne bëgg nga jaayante ak man benn mbir rek mu ne ko loolu mooy lan mu ne ko doo fen mukk mu ne ko yaay duma fen mu ne ko demal bi ñu ba ci digg àll bi ay àddu kalbe dogoon karawaan bi ñi ci nekk ñëpp ku nekk ngi fen di làq li nga am waaye bi ñu agsee ci Abdou Khadir yow ñaata nga amee 40 dinar ana fan la nekk mu ngi nii sama yaay ñëwal ma ko sama loxo mbubb yaa affaire bi dikkee leen kaw ñu dem wax ko seen chef yi yi ne ko karawaan bi daal am na ci ku doy waar moom dana wax ñaata la amee ak fat la nekk mooy dem lay indil ma ko ñu ko taxawal ko ci kanam waa waa ji nag nga ne ñaata ngaa mun a 40 dinar ana mu ngi nii sama yaay ñëwal ma ci sama loxo mu ne xotti leen ñu xotti fekk muy 40 dinar net mu ne ko waaw dëgg ji lu la ci digal di ñëpp di làq amee di fen ak euh, nëbbutu làqtu yow li nga amee da ko wax da wax fi mu nekk lu la ci dugal mooy dama jaayante woon ak sama yaay ba may génn kër ne du ma fen mukk loolu lay sàmm Cheikh Badi yi ne ñun nag war rajo dellu ci suñu bopp kii jigéen rek la jaayante di ko sàmm ba ci digg àll bi ñun nag ñu jaayanteeg yàlla ne ay julli lañ ba pare nekk ci liggéey bu salte bi ñoo njëkk a tuub topp Sidi Abdou Khadre ji nekk ay taalibe waaw koo xam nga ne dëgg jam wax sànku ko dëgg ji daf koo dimbale te indi na ay nit sax ñu topp ko ci dëgg jooju mu nekk wax dëgg du sànk kenn waaw du tax kenn perte waaw ndax dëgg dana la jëriñ fii dana la omat ba dugal la aljanna sax fen nag jëmut fen waaw su la mayee tey itam mayut la dara waaw ndax nu jamono gën a demee ci kanam rek nga xam ne fen yi mayut la dara alxaqu yaalu wala yoola alay dëgg dafay féete ko ba faw te dara du ko féete ko waaw imaam euh, léegi mu des nag ñi nga xam ne ñoo war a wate ji dañoo gis ni léegu léegi nga topp benn nit euh, mu am euh, ñaari camp yu jàkkaarloo ba ay bakkan ay bakkan di ci jaaree tamit ñoo ñu dëkkee réew mi te ñoom bokk doon ay jullit bokk ñoom ñëpp doon ay jullit di tojante bopp di rayante ngir kenn koo xam ne dafa bëgg falu rek yow nga faral ko ba mu la jaral la nga rey sa mbokk sénégalais wala sa mbokk jullit loolu tamit bëgg nañu imaam nga wax ci. loolu moom baaxut ndax jullit mooy koo xam ne jullit ñëpp mucc nañ ci sa làmmiñ mucc nañ ci sa loxo loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa wax na ci beneen xadis itam ne na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp nga nekk di jullit na nga rafetal jëm ci sa dëkkandoor nga nekk di jullit bu gëm sa dëkkandoor période lañ la dénk eefar la jullit la yépp nanga rafetal jëm ci moom bëggalal nit ñi li nga bëggal sa bopp nga nekk di jullit ba tey itam li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko doomu aadama te alxuraan daf ñoo wax ne waaw doy na doy na su ko déggee baax su ko déggul baax doy na alquran ci dars yàlla dafa wax ci alquran de man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamian ku ray bakkan bu innocent moom xam ne rayut wala mu yàq ci suuf mel na ni rey na nit soo bëree itam ba dundal benn bakkan am nga yoolab ku dundal nit ñëpp yow bakkan bi yàlla moo ko fi indi yàlla moo ko bind ana lan moo war a jar nga di ko fàtt surtout gannaaw bu mu nekkee jullit sax hmm? te mu ngi wax ci laaya ji ne ku ku rey bakkan bu gëm safara nga jëm hmm? kon élection yi jarut reyante jarut wax ju ñaaw jarut xastante waaw te li li ci ci gën a ëpp moo ne yow moom mu ciy rayante sax ka tax ngay rayante su demee ba gañe sax doo ci am dara waaw paquetam suukar sax doo ko ci am waaw kon nag jaru ko jarul ñaawal ni ñu dëkkee jarul ñaawal mbokk gi ndax yàlla wax na ne ana rahman wa rahim man wasalaha wasaltu wa man qataa qataatu man maay yàlla maay aji yar maay jëmmi yërmande lii mooy roxum jege ñaale ku jokk sa jege ñaale man yàlla dinaa la jokk ku dagg sa jege ñaale man yàlla dinaa la dog lu tax sax du def ko ni Europe da nga gis bàyyi ak doom ku nekk far ci parti politique te su ngoon jotee ñooy reer waxtaan kii far fii kii far fale lu tax ñu reyante du tax ñu xastante du tax ñu waxante wax ju ñaaw lu tax fii nag ñu foog ne bala ngaa am rek da nga wax wax ju ñaaw danga sàcc da nga fen maa laa jàpp Abdoulaye Niass bàyyi bàyyi Niass daf daa wax mu ne nit ki lim yàkkamti ba sàcc ko sax su doon muñ tuuti rek mu ñëw ci loxoom te du ko sàcc gannaaw yàlla def na muy wërsëgam ndax li yàlla ne danga ko am doo dee mukk tu may jot nga ko benn par benn ba ca bés bés bés bi mujj sa dund li yaadala doo ko am itam su ñëpp dajee woon pour may la ko munuñ ko kon loolu jarul nga yàq da sa de waaw hmm? ah, kon imaam nga tëjal ñu ci alxuraan macha allah waxtaan bi am na solo Euh, xam naa ñu fàttali ne rek yéen a ngi déglu rajo municipal bu Dakar RMD 95.5 tey ñu ñëwoon seet Imam Assane Cissé dégg ngeen waxtaan bu am solo bi nga xam ne waxtaan na ko mu doon loo xam ne jullit bu nekk war na ko mën a yóbbuloo ci giirub dundam kon imaam nga tëjee ñu ci alxuraan. waaw ah, maa ngi tëjee saaru wal asri bi ñoo daawuñ daje mukk lu may saar wi la ñuy tëjee saar wi lan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 ba mu des ñi xam ne dañoo gëm jëf-jëfi topp yi dénkante dëgg dénkante muñ kon nag ba léegi ku bëgg a mucc ci na gëm yàlla d'abord na nga jëf-jëfi topp yi faratee ak naafil yi na nga dénkante dëgg ki nga bëgg ki nga bañ yëpp dénk leen dëgg na nga dénkante muñ itam yii daal mooy li yàlla tëral ci alxuraan na ku bëgg a mucc ci perte yoon wii nga war a aw gëm yàlla jëf-jëfi topp yi dénkante dëgg dénkante mu allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf Imam Assane Cissé ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm